ñoo ngi ñaan euh, autorités yi ñoo ngi ñaan organisation yi association yi ñuy jàppale jigéen ñu mel nii euh, les femmes de business event femmes yoo xamante ni lañ bu leen neexoon tey toog seen kër ku si nekk jàng nga wala am nga métier bu la neexoon nga toog mais da nga ñëw nga ne dangay ngay góorgóorlu da ngay liggéey waaw donc loolu dañuy def lu dul encourager leen ku amoon trente stand tey nga def foiru quatre-vingts ça veut dire que li nga doon def fulla la li nga doon def fayda la li nga doon def lu nit ñi bëgg la buñ fi defoon loo xamante ni Thiès dafa xat Thiès dafa tuuti buñ fi defoon loo xamante ni baaxul tey du mel ni ndax Thiès waa du bale du baale voilà donc li ñuy def nii ñoo leen siy ñaanal ba pare ñoo ngi leen ci encouragé damay wax encore une fois na ñu dimbali daam yi et puis je suis très contente de voir le ministère de l'éducation Euh, def stand fii nii loolu rek dafay montrer seen dimension foire j'ai été honnêtement dama am surprise de voir la qualité et puis le niveau le niveau de de cette organisation parce que boo ñëwee jigéen defe naa ne jigéen moom moo yor këram moo yor ay doomam liñ lay njëkk a wax mooy avant ngay dem jëndi sax ay yére ak ay dàll ak ay yeneen matériel xoolal éducation pense à l'éducation de tes enfants pense à l'éducation de la population sénégalaise ba pare ngay soog a dem jënti donc yéen amuñu seen fay seen niveau foire bi man man honnêtement pour la première fois ma gis foire bu mel ni boo xamante ni xam ngeen ne ay jigéen ñoo fi ñëw mais dangeen ngeen leen wax dem leen ngeen xool éducation ba pare en collaboration avec le ministère de l'éducation soogay ñëw ci leneen yéen vraiment yéen vous des gens à encourager féliciter gouverneur de Thiès monsieur di féliciter monsieur Diop le maire de Thiès ndax je pense bu dul ñoom peut-être li du am parce que ce sont les autorités étatiques ba pare euh, oui effectivement lii Dakar lañ ko doon gis tey man yëre yi a jënd fii nii wala yi ma gis fii nii yëpp defe naa Dakar laa ko doon gis gis nag euh, fii des produits de qualité ay femmes yu ko def gëm seen bopp foire bi ku ko gis xam ni dañ investir nañ ku ko gis xam ni ay nit yu am fulla nit yu am jom nit yu am fayda nit yu bëgg seen bopp ñoo fi nekk maa ngi encouragé jigéen ñi fi nekk yépp nag jigéen ñi leen rejoindre jigéen ñi leen rejoindre parce que dañuy wax ni concept bi mooy she for her she for her mooy elle pour elle jigéen day jàppale moroomu jigéenam jigéen warul nekk obstacle pour moroomu jigéenam te lii ngeen di def nii euh, loo xamante ni la lu autorité yi war a teg bët la ay jox leen ay financement aider leen structurer leen xool nan na ñuy def pour gën leen pousse ngeen dem seen yoon en tout cas maa ngi leen di féliciter bu fekkoon ni si c'était à recommencer di may ñëwaat réccuwuma lu ma fi ñëwee c'est brave gis leen jigéen ñi nekk fii ni tey ci foire bi démontré nañ ni jigéen mën na réussir Sénégal jigéen mën na góorgóorlu Sénégal te li may wax mooy c'est le début d'une grande histoire pour ñoom peut-être ci lii la ñuy commencer seen jom seen seen seen jàmbaar seen sawarte dinañ leen indi ci leneen immigration du loo xamante ni dañ ko bañ parce que man mii rek sama plus de la moitié sama àdduna maa ngi ko dundee extérieur mais man da li ma bëgg mooy nit ñi jigéen ñi xale yi góor ñi sax gëm ni ah immigration baax na mën nga ko dem defi bu fekkee ne am nga possibilité légal pour def ko mais bu dul loolu toogal sa dëkk nga liggéey sa dëkk. da nga jógee ci événement te terewul da sol sa dàll woote ne premier jour bi laay ñëw. mu noon nga ne da ngay xaar ba dernier jour bi wala xaar ñu tànnal la bis mais dangaa woote ne déedéet comme mercredi ngeen di ubbi foire bi incha allah damay bokk ak yéen ouverture boobu sol sama dàll ànd ak sama délégation te ñoom it fàttewuñu tamit gërëm ñi nga àndal ñëpp muy groupement bi nga àndal muy sa équipe muy sa chargé de protocole chargé de communication tamit muy ay nit yoo xamante ni jiitu nañ fi te tamit def nañ liggéey bu mucc ayib remarque yi nga def yëpp dañ suñu xool daf ci gën a sedd mënoon nga ñëw loxoy neen day mel ni moo ñuy dàqal lépp ndax euh, li ñu xelal balaa ñuy commencé rek moo ñu gënaloon lépp ndax teg nga ñu ci yoon teete nga ñu wan nga ñu fi ñuy jaar xamal nga ñu ne troisième édition mun nañ génn sax Sénégal te loolu euh, bañ ko dalee kon commencé daaw a ren dégguñu ku ñu wax lu mel noonu donc sant yàlla ba ñu yàlla boole ku mel ni yow koo xamante ne mun nga ñu won yoon bi ba tey ñi ma leen tuddee ñoom muy les lions de la ville du rail ñuy toog ba troisième édition bi di nekk incha allah deux cent pourquoi pas deux cent cinquante cent merci encore une madame Diouf bind bon courage vous êtes capable vous êtes I love you. qui veut dire tout simplement je vous aime. répété ko waay répété ko wax nga xam bu bëri wax leeral say wax bon courage. vous êtes capable. Uh-huh. vous êtes merveilleuse. Uh -huh. I love you. Mm-hmm. Mm. encore vraiment merci de nous avoir.